maanaam dafa mel na li wolof di wax nee na ku wol mburu wolof nee ku wor wol mburu tudd dëkk ah wala fa ko wax ko wal mburu tudd dëkk kaddu yi fi jib kaddu pas-pas la mënul ñàkk jib ndax itam daje yu mel ni ku xam li ko lal xam ndigal yi ko waral bu ñu ko doon defe ca doj wa ca makka sax nga war a ca dem xàmme lu am solo la te Serigne Abdou li mu wax tabarkalla tabarkalla xam li xew moo tax mu wax ko waaw te it dafa am koo xam ni ci réew bu ko ñépp nangulee réew ma naat Serigne Babacar Sy moo joxe ndigal ci lii bu ko ñépp nangulee réew mi naat bu nangu gi desee coono di bare waaw loolu rekk la waaw mu mel na xàmme nag yombul wante itam boo xàmmewul ki xàmme lu mu wax rekk jaar ca te Cheikh El Hadj ku xàmme la ci wàllu tariqa cheikh ba moo taxoon mu dénkuñu mu dénkuñu ñuy wéye ndigalu Serigne Babacar Sy li ci mag ñi wax bare na lool waaw ba Maodo waxee ba noppi li ci mag ñi wax bare na lool ndax mas naa dégg ci làmmiñu sunu wéy jur bu baax di borom leer di El Hadj si Sy bu kaw la xa toog mu ni ma cheikh ma ni ko ah, mu mënuma la bañ ndax ñetti yëf waaw mu ni nga dégg ni jëw naa la ma ni ko déedéet kenn mësuma ko wax mu bu jëkk bi moo di da di sama doomu sëriñ waaw ndax sëriñ Babacar si moo di sama sëriñ Cheikh El Hadj moo nu boole ak moom bi ko ñaareel wóllëre rek Cheikh El ak bu Alaaji Abdu Kan amul limite waaw bi ko ñetteel moo di bi nu la fi jureeg léegi ma sunu fàttaliku foo bëggee ci sa bopp lu dul fayda waaw maa ko dégg ci làmmiñam de ma xam ni kon nag du seede daraja wante seede encouragement la waaw dafay am seede encouragement dara nekku ca waaw bu ñu dee woyal ki ci waar bëgg mu gën bay moo tax waaw noonu rek la toll bu ñu dee woy woyal ki ci waar bëgg mu gën a bay rek la waaw maa ngi leen koy nettali ca géeru ni leen mas naa dégg ci làmmiñu Cheikh El Hadj Ibrahim Niass mu ni ma sëriñ bi barke dañu koy tudd ci amul ndax coonoo koy sàmm ah kon nag barke amul comme coonoo koy sàmm kay mu mel na kon nag Sëriñ Abdul Aziz wax na leen li mu leen wax ndaxitam sëriñ Sëriñ kër Si moo ko ni woon demal ca Cheikh nga laaj ko xeeti ijaazaat yi ci tariqa turandoom mu tànn ci bi ko gënal nga bind ko indi ma signé ko nga jox ko ko waaw loolu wëllëre ëpp ko boo gisee sëriñ Alioune Gueye rëyoon ci Maodo rëy ci sëriñ Babacar Maodo dafa xëy ni ko demal ca Serigne Babacar mu wax la ijaazaat yi naka la ko bëggee nga bind ko indi ko ma signé ko waaw Serigne Alioune Guèye ko bind yépp mi ngeeg man pour wax la ni. bu ñuy wëyal ka ca waar wa mu taxul wante mu gën a bay moo tax waaw te moom Serigne Abdou xam na lu xew ndax góor gi daf nu daan yedd di wax ni seen maam lu nekk defal naa ko ko waaw wëral naa ko réew mi ba mu daj maa ko daan wax ñi jub di ko wax ñi jubadi xam na ko ci baatin ma wax ko ko ci zahir mu mel ni yooyu lu am solo la waaw ba tax na kon nag noonu mu ko waxe yi ci aju tabarkal la tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla te waxu leen ko te dina leen ko waxi bés moo lay won ni rekk daje bi kenn fuyu faya waaw waaw ndax itam bokk na ci béggu njaboot toog ak sa kilifa te daan na ko def ak Sëriñ Babacar xew-xew am mu ne xew-xew bi boo àggee barab sàngam nu nuy def ma ne kon nu jaay sunu bakkan billaahi wal kitaab ma ni ko ndax kat bari na koy topp yow mii te dafa jaayoon bakkanam mbirit daan na jub mu ni mbir mii de nii mu jub see buñ ci defee safaan nangam nangam bu ko defee su ma demee ci guddi mu ubbi sama armoire ubbi sama serviette këyit gu ma bañ nit gis ko danaa ko lakk ndax xam naa ni su ñëwee te safaan am rek naa jaay sama bakkan waaw këyit gu ma am rek naa ko lakk waaw bu ma fi jógee it nu ma bëgg ñu doxale ko sama gannaaw danaa ko bind bàyyi fa waaw ba tax na am na loo xam ni ku ci nekk mais nekkuloo ci caaxaan waaw <laughs> am na loo xam ni ku ci nekk nekkuloo ci caaxaan ah diggante yonent bi alxulafaul arba wàcc ba ci sayid Cheikh Ahmed Tijani Cheikh El Omar di la déglu Cheikh El Hadj sëriñ Babacar Sy nekk yar la ci diggante nuurul mutaltam nasril xaq bil xaq nga defe ni ci caaxaan nga nekk nekkuloo ci caaxaan waaw loolu moo mën a nekk waaw loolu moo mën a nekk ba tax na kon di ci bàyyi xel baax na moo tax mu wax leen ko li mu leen wax Eh, dafa leen ci mosal dana leen wax leneen tabarkal la bu jotee te dikk waaw mu mel ni kon nag fa tabarakallahu daje yu mel ni ëpp naa xeeb bu nu ko defoon rek kenn ku ne ñaanal sa morom fatiha doy na ndax itamit yu yàlla ko amee moo ko séddale waaw ku nekk nag sañ na fóot xolam ñaan boroomam bàyyi ko nag mu seet na mu laa sàmme na moo séddale yëfam lu la ci jik na mu ko defe lu ci nar a diis na la naka la ko woyofale na mu gëne mu defale la ko noonu comme am na ci yow yu wóolute ba bind la yaakaar ni doo yàq nguuram yow it amal ci moom wóolute ñaan ko te xam ni du yàq sa dund mu jeex kat ñaari wóolu la rek waaw bii moom am na ba noppi waaw ma nga daan def buy sañ ci kër nit di wóoluwuma ko ci sama kër naxanteeg moom bu mu ñibbi ndax dafay bañ mu yàq kër yàlla bu la wóolu ba bind la def la ci nguuram am na lu la war yow itam waaw mooy nga wóolu ko bàyyi ko ak sa bopp waaw loolu rek mooy li am solo fa tabarakallahu ah bu dee wàllu wér ak ndigal tabarkal la xalaatuñu ko waaw bu dee wàllu wér rek ak ndigal xalaatuñu ko waaw te yonent ba ba tey laa wax xalaatuñu ko waaw li nuy xalaat kay mooy bëccëg bu nu toogee fàtte ni njaboot la nu bëccëg boobu baaxul ci nun waaw wax dëgg yàlla noonu la toll fa tabarakallahu sëriñ Abdou wax na ko ah rakkam sëriñ maxtaar mbakke wax na ko te alaaji njaga caam yàlla yàlla yokk leeram nee kilifa nee kilifa kenn du ko ne sama rakk nee kilifa du rakku kenn waaw waaw waaw waaw waaw ne kilifa kenn du ko ne sama rakk moo tax sañunu sax wax ni sunu rakk lanu waaye nag itam bànneexoo famille ndax famille bànneex nga ca moo tax nuy wax ni sunu rakk yu baax yi waaye sañunu ko ndax sunuy kilifa lañu wax dëgg yàlla mu mel ne it mësunu fàttali ko jëm si ci yéen te du wax nañu sëriñ Babacar ni ko nu nga jëm ca sa njabooti bopp yi waaw loolu sañu nu ko bañ wax ndax it eh, ku leen yilif kudul moom amul waaw bu fekkee muy bés bu ma wéradi sax maa nga am grippe maa nga am sedd wala leneen ma ni ko ah, dox bi de mënuma ko tey waaye téye ci rek ba ma dem ba dellusi loolu pour xam ni Eh, lu jiin njaaga lu jiin njaaga waaw li xew moom la te ku ko xamul yàqu-yàqu dugg ndax mës na nu ko dégg ca Tiwaawan ngeen seede ko mu ni doom maa jur wante mënu leen fexe ba am barke ci nit ñi te jaarul ci sama loxo ndaxit masuma mën a am barke ci nit ñi te jaarul ci seen loxo maam Cheikh El waaw moo taxit it nu delloo ko ko tabarkalla te it nu ngi koy def ay kilifa di nu ay kilifa dinu nu ndax njaboot su dee taalibe dooleem du bare wante bu ko kilifa dimbalee mu man la mu bëgg daje bi président de la république dugal na ci loxoom te moom wayjur la yéen moom wayjur la yéen doom ngeen jaarale na ko ci ay kilifa kenn ku ne bind na alaaji njaase wax ko yéeneem ak la mu def mu mel na kon nag loolu ñaan ak can moo ca war waaye itam taxawaay it baax na ndax réew mi nun ñépp a ko bokkate waaw kenn ku ne sa jom a ngi ci doxal nga sa diine ci sa daara ba ñu xam ni responsable nga doxal nga sa politique ci sa parti ba ñu xam ne responsable nga loolu am na ñoo xam ni ku ñu yar nga mëne ko waaw ku ñuy yar rek nga mëne ko waaw am na koo xam ni lu mu desal rek desal kilifaam waaw am na koo xam ne lu mu dese desal rekk ci doxalinam desal kilifaam doxul doxul góor dafa nekk góor waaw lu mu war dox dox ko lu mu war wax wax ko lu mu war a taxaw taxaw ci waaw mu mel ni kon nag loolu cantam jaar ci sunu làmmiñ dugg ci seen nopp te it nu ngi fi toogal ki ko fi toogal te toogal fi diine ji mu di Haj Malik Ba Haj Malik Ba surtout tafsir Mabala ba Jaxu waaw Cheikh Al Haj Malik mësul tudd mukk ba ndax yërëm kook ñëwantu ko waaw almujahidul kabir rek lay wax waaw ndax taalibe bu mënoon a toog ca daaraam naan attaayaam kenn du ko ni sa bët bi suufa ngi ci bu génnee takku di def ziyaatam ba ñu jël ca bakkanam taalibe bu jara la waaw loolu moo tax mu naw ko ba almujahidul kabir rek la daan wax waaw Maodo ku bare kersa te ku bare yërmande la waaw ñi jaay seen bakkan yépp ndax diine def leen a sopp yërëm leen waaw ndax daan na wax ni Cheikh El Hadj ak tafsir Maba ñoomatee def jihaad lu ma ca naroon a def def nañu ko waaw sama yoon xàll nañu ko ba mu leer lu ma neex ci diine naa ko ci def waaw loolu ci xàmmeek yàlla la bokk ah ci xàmmeeg yàlla la bokk mu mel ni kon nag tabarkalla sunu jigéen it mu ngi toog na gën ni daaw amaanatallah moom itam di membre ci gouvernement bi ah dañu wax ni jigéen amul góor amul ko am jom rek am waaw jigéen amul góor amul ko am jom rek am tabarkalla tabarkalla ñu di ko bàyyi xel waaw ba tax na moom it ndimbali yaag taxawaay ya nu sant ko nu ñaanal ko yàlla itam te delloo ko ci mag ñi tax ñuy sonn ndax mag ñi demuñu fen mag ñi demuñu fen Sëriñ Babacar Si daf daan wax ni nee na ku leen di tudd wàcceel sa baat waaw bala nga leen a tànqal ca barsax waaw ca barsax nee na ku leen di tudd wàcceel sa baat bala nga leen a tànqal waaw ña ca barsax la wax de te it Sëriñ Abdu duma ci jëppi Pape Malick duma ci jëppi danaa leen wax ni bés bu ma yégee ni gëm ngeen ni Serigne Babacar Sy dee na ma génn ci yéen àdduna ak bés bu ne ma wax leen ndax itam kat koo xam ni boo àddoo tànqal ko soo defee ni jóg na fi booba am na lu la dese am na lu la dese waaw ah. ndax li may def bërki démb dañu war a dem Kaolack man yaa ni ma daan tàggoo góor gi dey ma tàggooti ko noonu wante it ma ñaan ko demu kawlax bi mu may ma ma séddee ko Cheikh El Omar ndax sama ruux yëg na ko sama xol yëg na ko su ma ci joxee ndigal rek ma tuddee ko ko yàlla te mu d'accord ci ma tuddee ko ko ma tuddee ko Cheikh El Omar yemale ko nag sama diggante ak moom xasida bi ma def ci Cheikh Al Omar ma jël ko def ko ci sama poche ba ñu demee ba ca Kaolack may bëgg a tàmbale waxtaan wi ma dawal yéene ba waaw bi ñuy ñibbisi xaaj maxtaar baabu seede la ci Ousmane Cissé seede ci ba ni ma man de dama dégg ni yonent bi nee na jullit lu mu gént guddi war na ko nettali waaw ma ni ko dina ko di wax mu ni ma dama gént biig Cheikh Alhaji Omar Gane la ma ne ko mu ni ma gisuma kanamam waaye jël nga sama loxo teg ci loxoom ma xam ne la ma waxoon Serigne Babacar nangu na ko waaw nangu na ko amul benn werante waaw nangu na ko amul benn werante mu mel ni kon nag ku réere ni mag ñi lañu am sa dara du dox waaw sa dara du dox nag dëgg la waaw bu defee mooy tax lu nekk nu delloo leen ko yàlla dogal tabarkalla suñu préfet ca Tivaouane ak délégation administrative bi gouverneur àndal ñu ngi toog tabarkal tabarkalla wëllëre wëllëre wëllëre yàlla rekk a xam naka la toll yërmande ci wàllu njaboot itam yàlla rekk a xam na mu toll yooyu yépp daje ci jataay bi moo tax rekk ku yàlla xiir ci nga bëggal sa bopp lu baax waaye boo fas ko fi te teewlu ko waaw waaw boo yeboo fas ko fi te teewlu ko tabarkalla tabarkalla ah yàlla dogal itam nu ñëw jaari ca tafsir alxasan defal ko dog yenu ko daan defal tabarka la fekk ci famille bi ndax itam lu nekk ka yàlla jaarale ci moom liggéey ba it am na cër tabarka la tabarka la mel ni loolu boo gis nit ci te it dox na ci mu mel ni kilifa yi fi daje te jàppale ñépp la gis na nañu leen xam na nañu leen tabarkalla sunu député maire a ngi fi tabarkalla bu teewal xanaa député maire yëpp neex na waaye nu sunu bos neex na <laughs> wallaay ndeysaan xam naa sunuy jarbaat a ngi fi sax waaye am na ci benn boo xam ni ah Christian Valentin ndeysaan wëllëre bokkul ak bokk dara di nga bokk ak nit te du nekk wëllëre waaye di bokk ak nit ba noppi mu nekk sa wëllëre wallaay ndeysaan nëgë ni démb lay waxtaan ak benn kilifa nuy waxtaane wëllëre mu ni ma moo rëy mu ne ma dafa feeñ ba ci sa benn jarbaat mu ne ma anamu léegi ma ni ko kan la mu ne ma Christian Valentin ma ni ko mi ngi fii mu ne dama gis bu gàmmu Tiwaawan ma daan xew bu njëkk boobu petit jeune homme la wallaay ndeysaan mu ne ma boobu ko daan tudd di ko xool mu ni ma xam nga yooyu ëpp naa xeeb waaw mu di doomu ndar nag ame ji ko doomu ndar ni ma yooyu ëpp naa xeeb waaye wax na dëgg ëpp naa xeeb tabarkal la tabarkal la lu nekk bu ko yàlla defee ëpp naa xeeb waaw xëy na nit sax mën na def nga xeeb waaye bu yàlla defee ëpp naa xeeb waaw bu mel ni yooyu yëpp nag daje na fi fa tabarakallahu yàlla dogal itam yooyu cër yëpp bi ngeen ciy jot mu jaarale ko ci sunu wóllëre bu ñuy wax Jean Collin mi ngi ma koy wax ni ma anamu moom itam ma ni ko mu ngi fi ndaxam mu ni ma moom suma lëre la woon boobu petit jeune homme la mi ngi nekkoon ak Mamadou Dia ma ni ko waaw kay moo tax loolu yàgg na waaw ah yàlla dogal ci nun nag sunu jikko ni mu mel rek la mel waaw doonu dikkee dëgg yaa nu moom boo nu dikkee neen ñàkk nu waaw abadan ba tax na ah sunu ñaari wayjur yi ci wàllu diine ak ci wàllu deret di cheikh Abdul Ahad Mbakke ak cheikh El Abdul Aziz Dabba nu ngi wóolu ni nu ngi wóolu ni lépp lu nu sédd Serigne Babacar sédd leen ko barke rek a cay mujj waaw loolu dañu ko wóolu ñoom it am na lu nu xam ci nun waaw ndax dama toog Serigne Abdou mii ni ma sama turandoo daf la soxla ma ne ko na la wax fu ma fu ma koo fekk mu daw dellu ni ma nee na nga wax ko nekk ma ni ko dellu ca ni ko na ma wax fu ma ko fekk muy dellu si indaale ko walaay ndeysaan walaay ndeysaan mu ne ma ee eh, doom dama ñëw rek ndax waxtaan mu ne ma ndax jamonoy toll foo xam ne nag loo wóolu rek wóolu nanu ko waaw yàllaa ko dogal mayuloo ko sa bopp waaw mu ni ma te naa dégg ci sa bàyyi Mansour mu ni ku la bëgg jariñoo na la bàyyi ci sa jikko waaw ndax comme sa papa Babacar daf la bàyyi woon ci sa jikko ku sàkku leneen moo tooñ boppam waaw sëriñ Abdou ngi toog keroog xalifa loo mii moo doon defaral limonade man lu ma leen wax rek wutal ko seet mel na kon nag tubarkalla ah xam naa ñàkk wóolu mënul nekk waaw ñàkk wóolu mënul nekk tubarkalla wóolu rekk moo mën a nekk wóolu rekk moo mën a nekk dañu di xale yu tuuti xale yu tuuti nekk ci daara ji lu daara laaj nu def ko ne xale yu tuuti tubaab yi di waaj a génne réew mi nu takku lu war ci réew mi nu def waaw waaw moo tax bu nu dee nangu yenn doye di yi sax njaboot rekk a tax ndax itam réew bu ca màbb rekk dese ku yëngu yaa yàq waaw réew bu ca màbb rekk dese ku yëngu yaa yàq waaw ku yëngu rekk yaa yàq comme nag nun bu nu yàqee du nu am fu nu toog nu bañ a yàq rekk mel ni kon nag xam naa ñaari baat ñaari baat yi mooy dañu leen waxoon ca Kawlax ni leen àdduna su ñàkkoon solo bi yonent bi rañaanee du dellu si waaw adduna bu ñàkkoon solo bi yonent bi rañaanee du dellu si ba la ni àdduna amul solo déggu ko déggu ko waaw yàlla wax na ko ci alquran subhana alladi asra bi abdihi laylan ak la ca xew yépp bu àdduna amoon amul woon solo yonent bi dina wax yàlla may ma ma toog ci yow waaw waaye li tax mu dellu si lëf la waaw waaw te ñi mu jëkk a may ñu wuññi yeneen yi àdduna ndax yàlla wax na ci alquran ni am na ñu mu mayoon ñu jóge ci suuf si dem ci yeneen i àdduna ba ñu demee lamb nañu lafane lañ ca bëggoon a xam xamuñu ko waaye àgg nañu wax nañu ni wax nañu itam wa inna lamasna sama waaw fa la yitte yam fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa shuhuba wa inna kunna naqudu minha maqaida lissama waaw faman yastami alan yajid lahu shahaban rasada waaw wa inna la nadri wa inna la nadri asharrun asharrun urida urida waaw ndax charre jógewul ci yàlla kon nag kenn du ni acharrun araada allahu kenn du ko wax acharrun urida bi moom fi l ard am ba ca des la yàlla moom am araada bihim rabbuhum rachada

ñetti cadre rek la cadre bu jëkk bi yàlla rekk daa ko fa wut ba xolam set cadre bu ñaareel bi mburu rekk waaw daa ko fa wut ba xolam set moom mburu cadre bu ñetteel bi kaaraange rekk daa ko fa wut ba xolam sedd bu xolu yàlla seddee xolu mburu sedd xolu kaaraange sedd doomu aadama def na waru galam ci kaw suuf lu mu ca teg dafa sawar waaw lu mu ca teg rek dafa sawar fal yaabudu muy kaadaru yàlla rekk nag rabba hada albayt alladi atamahum min juuci wa aamanahu min xawf waaw bu jeex tak waaw yàlla dugg mburu dugg kaaraanga dugg mu jeex tak loo ca teg yow la neex ku am yàlla am mburu am kaaraanga lu mu defati dafa sawar waaw waaw waaw Uh-huh. inna laka alla tajua fiha wala taara jeex na droit la ak devoir inna laka alla tajua ah <laughs> droit la ak devoir inna laka mu wóor la ni yàlla jox na la droit bëgge mburu waaye allah tajoaja moo lay won ni devoir la parce que boo toogee fa nga toog jóguloo def nga musiba waaw yàlla baaxam may na la nga jëriñoo mburu mu di droit pour yow teg na la nga sonne ko mu di devoir ci yow waaw inna laka allah tajua wax bi eh, eh, sedd na sa xol tiital na la sedd na sa xol ndax yàlla lu mu war lu def ko te ne dana la jox mburu nga lekk waaye itam allah tajua boo xiifee ma dal ci sa kaw ji moo lay won ni jóg sàkk ko devoir bi ne la ka allah tajua fiha wala taara innaka la tadmau fiha wala tadha waaw nee na may naa la xelum lekk du la jafe may naa la xelum naan màndi du la jafe may naa la xelum jant tàng nga wut foo dugg du la jafe yooyu ñett rekk fi nekk waaw moo tax suuf si yi ci yàllay nattu mooy tax du tuuti waaw du tuuti mukk nag huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiiha baatub colonisation istiamar baatub colonisation ca alquran la dikke moo ci dugg yàq ndax yàlla nee na maa leen colonisé man rekk maa ko waaw moo tax bu la yàlla colonisé nga am jàmm bu la nit colonisé dootoo am jàmm mukk xam nga lu tax du bonu nit ka waaye sa càggante la du bonu nit ka waaye sa càggante la yow yow mi ko nangu sa càggante la ah, oh. parce que mag lu mu ni lànk na jeex na waaw waaw waa da du donu ki la dañu ne makka lu ma nangu teg ko ko dagan na waaw aha moo tax itam mu teel a yëgle yëgle bi mooy jafe-jafe yi ci kaw suuf nee na itam àgg na ak foo xam ne jafe-jafe yi ci kaw suuf nu ñu koy déggi lu dul ni dafa bëgg am ay jàmbaar jeex na waaw ndax borom kër bi fanaanoo junni xëy joxe ko dépense tëdd ñu toggal ko ak kontaanul ndax am na lu des ci bëccëg bi ki ko xëy amu ko sol dàllam ñaqi ba indi ko na moo fanaanoo bég ci boppam dana wuteeg ki ko fanaanoo waaw ndax góor balaa bég rekk sonn waaw góor piir laa wax mel ni kon nag waxanteem yonent yi yonent yi dem nañu wante waxanteem ak nit ñi du jeex ndax Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu ku gëm la ku gëm la ni yàlla mbaaxam du jeex la waaw gëm na itam ni yàlla waxanteem ak nit ñi du jeex waxtu nekk ay boroom xel a ngi ci yoo xam ni situation bu ñëw rekk am lu ñu ca dégg waaw ba tax na na am fu nu ko teg ni ëpp nanu waaye na am fu nu ko teg itam ni jàppandi pour nu wax ak moom nag ah ñaar yëpp dafay am na am fu nu ko teg nag fuy wone ni xamuñu ko dégguñu ko waaye na am nag fu nu ko teg ci kaw xam ni nag jaadu na nuy waxanteeg moom waaw ndax bu nu waxanteetul ak moom rek àdduna tukki waaw yow kay buy bu laajte sax waxul waxal ak moom rek waaw ndax moom itam boo bëggee laajte fu may jaar pour wax ak moom wax ak moom yomb na la wax ak moom yomb na la waaye nag itam boo bëggee ni bala ngaa wax ak moom gis ko gisu zahir du sotti waaw qul liman yafhamu anni ma aqul qassir alqawla fada sharxun yatul tamma sirrun gaamidun min dunihi qasurat wallahi acnaaqun fuxul waaw waaw ba tey in taqul kayfa faqad mathaltahu aw taqul ayna faqad rumta alxulul wa huwa la kayfa wala ayna lahu wa huwa rabbul kayfi wal kayfu yaxuul waaw wal kayfu yaxuul waaw jalla zaatan wa sifaatin wa suman moo tax moom mu wax ni wóolu na wóolu na li mu def ci nit wóolu na ko wóolu na ko ndax kat bu doon fi liir juddoo balaa nàmp ñu jàngale ko lekkool ba mu xam ween soog a nàmp defe naa kenn du màgg waaye li tax liir bu juddoo rekk ni katam ci ween te ween yàlla ko ëpp doole ci liir bi moo tax ki leen ni mënuma dégg ni yàlla nekk na dafa fen dafa fen waxul dëgg moo ko gën a dégg ñëpp moom xam na ko yàlla xam na ni ñëpp dégg nañ ko xam na ko xamuloon waaw moo tax mu ni yonent bi fa innama alayka al balaax wa alayna al xisaab déglu leen jàmm la yaa ko moom waaye nag itam nopp bu ne ma xam ba déglu maa ko moom moom la wax yonent bi di ko déglu leen jàngal yaa ko moom waaye kër gu ne nopp ba ca déglu kan ñu xam ko maa ko moom uh-huh. waaw gisal rek yemale yonent bi xaat fa mu war a yem bu ko jéglee rek kacciri gi dal yow daal am na law moom kenn du ko xëccu yow booy déglu leene jàllal waaw yaa ko moom waaye kër gu ne ka ca def nii ma xam ko kooku sama cër la waaw uh-huh. moom xam na ni nit ñi xam nañu ko waaw ndax ku judd yuuxu jàpp sa weenu ndey namp ko te fekk fitra bu yàlla ne def na ci yow fitra bu ni toll pour nga xam mooy kan doo ko mën a weddi waaw dafa fekk nag arwaax yi bokkuñu am na arwaax yoo xam ni arwaax xaw yi am na arwaax yoo xam ni arwaax paise lañu waaw pexe amu waaw pexe amu waaw al arwaxul qawiya mi ngi fii moo ne al arwaxu paise itam kenn du leen jëppi waaw kenn du leen jëppi xaleel ñaar la xale bi xiiboon ba fu mu baree ñu daan ko am na ruux bu mel noonu ak ruux bu dëgër ba dañ koy sampal ca lamb ja ku mu bëreel daan waaw ba ñoom ñaar ñëpp jaamu yàlla lañ amuloo ci pexe wallaay wallaay wóor na ni xale la nii ma toll ni laa toll ñëw naa sa buntu kër Sëriñ Babacar Si ñëw di ñaan ci nawet bi mu xamal mu ne sunu borom bi si ñu man li nuy ñaan nañ ko jaarale Sëriñ Babacar Si képp koo xam si ni taxaw na wax ni ñëpp nañu ànd jaamu suñu borom moom waaw e arwaax arwaax qawiya dafa am arwaax daifa su loolu amul woon kon duñu ni nawet bi amul ndox ñi sangu ba set sol seen yére yu set suur ko ŋàbb seen kurus ak seen kamin jëm ca jàkka ja ñooñu arwaax xawiye yi la ñu nga jëm ca yàlla ci seen façon arwaax faïche yi ñooy sol sagat diw dóom ci seen kanam sabar topp leen ñu fekk ni dañuy mbaaw ñoom it yàlla dana leen dana leen wuur ndax arwax qawiya yi ci moom lañu jëm arwax faayise yi ci moom la jëm pexe amul waaw waaw loolu moo tax waaye rek boo màggee am noo war a doxale waaw sama mbokk ma ndeysaan yal na yàlla yërëm ko duut gi médecin dafa waxtaan ak Serigne Abdou ni ko man daal balaa waxtaan werante wee jeex euh, ma wax ko Cheikh mu ñëw wax ma ko ma ni ko demal jëli ko mu ñëw mu ni ma dama doon laaj ndax at yii di ñëw defewuloo ni daañu dellu ci sunu diiney maam yi mu ni ma waxin la mu ni ma ndax itam ci millier jàngkat yi dañ ciy faral di werante may laaj ndax xaraam na wala xaraamul ma ni ko dafa mel ni ku leen ni xaram na rekk tooñ leen dellu ci diine maam yi ma ni ko defa mel ni ku leen ni xaram na rekk tooñ leen te nit ñi ma ni ko dafa am yu ñuy gëm te boo demee ba sa xol tàng jër ngir ay boroomu kàttan yu wàcc sa réew exploité la rey la ba nga dee teg la loo attanul danga nga dema dem ba defe ni loo duggati rekk mu def la loolu la cay mujj nga ni ah waaye teema dellu ci la sama maam nekkoon ka ko gëm dëgg nag boo ko teree rek ngeen xare moo tax ma ni ko xaramul ma ni ko dellu ca diiney maam ya xaramul wante dafa doyadi waaw ma ni ko ndax it nit ñi xàmmewuñu li xaram ak li doyadi ma ni ko borom kër namp biberon xaraamul ci moom wante doye dina ci moom <laughs> ma ni ko noonu la rek <laughs> moo tax xaraamul xaraamul wante rek taxul nag ñi jàng ñam xam li ñam di jëriñ yaramu mag bala ñoo digal mag muy jël biberon booba dara desatut waaw ba moo taxit ñu nit ngënk yi ñëw ba noppi ulul azmi min ar-rusul jële ci yàlla li ñu jële ci yàlla ah Ibrahim ak Moussa ak Isa ak Muhammad yal na dolliku xéewalu yàlla nekk ci ñoom li ñu indi doo ko mën a di dellu ci sa noom walla boo ko defee doye di dugg waaw ngi mel ni mag moo xëy di di nàmp biberon moo tax ñu ni l'islam diine tànn la boo ci xasee dugg jeex na e, e, dugg nga ne rubb ndax diine tànn la waaw waxuma yow sax nga tànn waaye yàlla yi tànn na la te yow mi tànn yàlla liibaru waaye moom mi la tànn itam tax na liibaru la waaw ñaari ñàkk liibar yëpp nag ci yow la ne waaye moom liibar na ci lépp waaw te ci waxante daf koy wax wax bu simple waaw tudd ku baaxam ni maa ko tànn ci àdduna te bu àllaaxira mu yiw mu yiw jeex na tàkk du ca teg dara ndax yàlla ku mu tànn taxawu la wa laqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fi l-axirati la min as mu jeex tàkk doy na doy na maa tànn diw ci àdduna te bu àllaaxira du fa yiwadi warlu naa ko doy na waaw moo tax waxuñu ndaw bañ a béggee ndawam moo tax waxuñu ni ndaw bu mu béggee ndawam dañu ni ndaw bu mu yàq ndawam bokkul moo tax waxuñu ni ndaw bu mu bëggee ndawam dañu wax ni ndaw bu mu yàq ndawam dañu jege ñoo te bokkuñu te yàlla tax ndax ci alquran la ko wax nee na bu dee waxtaan ak ndaw yi ndaw ya nga xam ni dañu jaawale ñaar yooyu ne bu ñu ñëwee di ko xool bala leen a baal sax am na nu mu leen di yedde ndax daf leen di wax ni adhabtum tayibaatikum fi lxayaati dunia waaw moo tax jariñoo sa ndaw baax na waaye yàq ko baaxul ndax yàlla bi nga tolloo ci nit ci at loo sol boo génnee ndaw lu jigéen li ni laa rafet na boo rombee sa tànta mbaa sa yaay mu ne yow de sa baxa bi sopp naa ko nga dem ca fa ngay naane attaaye ñu ni yow dal sa kàll gi moo rafet waaw nga dem ca pénc ma ñu ne ah mais ku la doon defaral sa dàll yi nee na foofa rek la bëgg may itam nga sarax ma rek xam may kat waaw <laughs> ah waaw <laughs> ah? ah? mais loolu rek la de man koy bugguma ndaw rey bopp waaye dama bëgg bu séddee corom sédd tantam ak bàjjenam ba ñu ne ko kàlle gi rafet na sédd fa naa naanee ataaya ba ñu ne ko baxa bi baax na séddi penc ma ba ñu ni ko dàll bi rafet na nee na mayit rek na xam ne maam laa rek maa ngi fi waaw waaw na ko yëg rek nee bu ko deful nag bu ma fekk see ah ne ba mu koy jéggal nag ni ko ah azhabtum tayibaatikum fi xayaatikum dunya wastamtaatum biha ah mais uh-huh. loolu rek la ba tey yàlla ku yiw la waaye ku bëgg lu yiw la te it ku am waxin wu yiw la waaw moo tax ba ñu bëggee eh, xirtal yonent bi pour mu eh, eh, simb simb simb ci kaw nit ñi mënu ko mukk maa leen moom waaw waaw moom bëggul simb wala bu dee am na ko def moom am na fu mu ko yemale waaw laa yadurrukum man dal ida htadaytum bu ko defee bu jëkk bi nag amul solo gi bu mujj bi am solo waaw laa yadurrukum man dalla idaa htadaytum yàlla ne ki jaarul yoon du la lor waaye ci kaw nga jub nee ki jaarul yoon du lal la waaye ci kaw nga jub waaye jubuloo ba noppi di wut ko juba di pour waar ko kooku du sotti waaw <laughs> ah. moo tax bu jubee boo jubee ba noppi dootoo mën a dootoo mën a waar ku juba di njub gaay tax nga yërëm ko ku yërëm nit nag doo ko mën a waar da nga koy laabiire waaw ku yërëm nit boo jubee dootoo ko mën a waar da nga koy laabiire waaw waaw laabiire nag du dem pénc waaw waaw laabiire du dem pénc sëriñ Babacar si nee na gor boo tëddoog moom ni ko nangam baaxul nee na génn daje keneen ni ko ah, sa waa ji de digal naa ko nee na ñu bindal la bakkaaru ku jëw waaw ñu bindal la bakkaaru ku jëw ah sa waaye de wax naa ko loo xam ni fekk def nga musiba waaw loolu mais boo ko waxee ci pinc ma nag ñu bind la bakkaaru ko xas gor ba moo tax am habitude yu baax moom rekk mën a sowe nit waaw bu yonent bi dee wax bu leen des ca pénc ma bu leen toog ca mbedd ma bu leen dem ca marché ba lépp la daf lay jox habitude yu baax ndax ña ca marché ba liggéey leen fa yóbbu waaye waxtaan yóbbuwu leen bu dee bu ñëpp xëyee dem marché ba di liggéey nag yow nga xëy pour waxtaan na li leen yaa def musiba ma waaw pénc genn wàllu waxtu doy na ci bu ñëpp waxantee jàmm genn wàllu waxtu ñëpp jóg sàkki pexe kon nag ku fa des yaa tooñ waaw ndax ku fa des kat bu yàggee lu gor dégg yàgg ko wax waaw mbedd yi toog ci mara day taali place rëbbukaay la ku toog ci mbedd yàlla rëbb la parce que gor yi làqu bañ koo xam la ñuy doxi fa uh-huh. lay romb ba moo tax habitude yu baax mooy jox nit diini waaye julli kese kese sànni woor kese kese sànni aj